alhamdulilahi rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala aalihi wa asxaabihi ajmaciina amma baad mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla ci topp ay ndigalam ak bàyyi ay tereem su loolu wéyee ñu xam ne aar ab aar ab société ci feebar yi nga xam ne feebar yi jikko la mu ngi war a tàmbalee ci faj benn feebar boo xam ne bu tasaaroo la feebar la boo xam ne bu wàccee ci ab société nit ña ko composé duñ faale àqi keneen duñ faale droit keneen duñ faale intérêt keneen dañuy yaakaar ne rekk kenn ku ne dañ laa bind ngir sa xaqi bopp ngir sa intérêt bopp feebar boobu mooy feebaru bopp sa bopp kenn ku ne nekk ci sa bopp doo am soxla ci keneen jullit nag bi xam waru garam ci biir société l'islam dafay bëggal mbokkum jullitam lim bëggal boppam da koy fàttaliku ci yëg-yëgam di ko fàttaliku ci ñaanam lu jiitu sax mu koy fàttaliku ci alalam jullit boobu day am na lu ko naqari lool lu ko metti lool su gisee ne biir société bi ay jëmm a ngi ci yoo xam ne ñi ngi jëf jëfiin yoo xam ne ñu koy askane lislaam wala ñi koy askane sunna jëf-jëf yooyee da koy metti lool day metti ci moom lool ñu àtte société bi benn àtte ne société bi baaxatul nit ñi baaxatuñ kuréel sàngam baaxatuñ loolu daf koy daw day def effort bu baree bari ngir bëgg nit ñi xam ne xeet wi ba tey jàmm lu baax a ngi fi lu baax demul loolu nag daf koy jaral lu bari jullit bi bëgg nit ñi xam ne ba tey lu baax a ngi ci xeet wi daf koy jaral lu bari jaral na ko waxtoom jaral na ko alalam bu ko laajee sax jaral na ko ak dundam ci silsila bi ñu bëgg tàmbali bi ci waxtaane lenn ci dunduk ñi waroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudde ko silsilatul ji qisasul jiilil farid nett li yoo xam ne ñu ngi jóge ca maas googee nga xam ne ñooy royukaay danañ ko tàmbalee ci benn xissa boo xam ne ci jataayu Omar ibn al-Khattab ci la amee woon téere taarix yu bari indi ko lu bari ci boroom xam-xam yi sunna it ñi indi ko ci seen biir yi téere donte wutaluñ ko benn chaîne boo xam ne ci ngay mën a sukkandikoo ba mën a àtte ay góoram xam fu mu ci wàllu dëgëre waaye téewul boo jàngee li nekk ci biir danga xam ne dëppoo na lool ak li nga xam ne loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa jàngaloon saxaaba yu yar leen ci benn bis ci jataayu Omar ibn Xattaab ñaari xale yu góor dañoo ñëw jiital benn waay jóge ca kaw ga di ko bëmax di dox ak moom ba agsi ci kanam Omar ibn Xattaab mu ne leen lii lan la ñu ne ko kii dafa rey sunu baay kii dafa rey sunu baay Omar ibn al-Khattab ne ko ndax yow yaa rey seen baay mu ne ko waawaaw lu tax nga rey ko gëléemam dafa dugg ci sama tool ma ne ko génneel say gëléem mu lànk ma for aw xeer sànni ko ko mu dal ci boppam mu dee waa ji nettali na boppam li xew Omar ne ko li fi sës de mooy àtte bi yàlla rey la kon dañ lay rey kooku boo xoolee da gis ne àtte la boo xam ne noonu la ko yàlla santaane nafsu bi nafs ku rey bakkan ci lislaam dañ lay rey waaye li nuy waar foofu mooy Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu laajul kii ci ban famille la bokk laajul ban raa la am ci wàllu social ci askan wi laajul ban personnalité la li ko itteel mooy àttab yàlla dal na ci kaw kawam te des koy teg ci kawam kon loolu wute naag lu bari loo xam ne mi ngi am nag tey ci nit ki ba lañ koo àtte gëstu ba xam ku mu doon ndax ku ko àtte dana indi fitnaag du indi fitnaag yu mel noonu yooyu yépp itteelut Omar àtte yàlla ñëw na day tegu ci kaw ak ku moo mën a doon waa ji ne ko yow amirul muminin maa ngi lay ñaan ci yàlla mi taxawal asamaan ak suuf nga bàyyi ma donte sax genn guddi la pour ma mën a dellu sama kër waxtaan ak sama soxna ak samay doom wax leen ne leen damaa def loo xam ne reye ci war te dañ may rey su ko defee ma delsi ndax kat maa ngi lay waatal ci yàlla ne amul kenn ku leen di taxaw di leen defal dara gannaaw yàlla ku dul man Omar ne ko kan moo ma mën a garanteel ne yow dangay ngay delsi waa ji ne cel nit ñi teew ñépp itam ne cel ndax ñoom kenn xamu ko ci aw turam sax xamuñu ko xamuñu këram xamuñu ci wan askan la bokk kon garanti ko du yomb ñu baree bari moo tax ñépp ne cell te garante bi doonut lu woyof du garanti ci wàllu xaalis walla suuf wala ak jur waaye garanti la koo xam ne su kooka dikkut la ko naroon a dal ci sa kaw la jëm maanaam dañ lay rey kon du lu woyof te it atte yàlla la boo xam ne it ci loxol Omar ibnul Xataab la nekk jëmm joo xam ne xel xalaatul di ñëw fi moom di wax lu jëm ci wàllu intervention wala jégglu wala naan defal ma lii ginnaaw àtte ba xas na agsi ci moom kenn ku ne xam na ne ne ko yàlla waxe rek noonu la koy defee saxaaba yi ne cell Omar bin Xataab ne cell xaw a nekk itam ci ak jaaxle ndax day rey waa ji xaleem yaag njabootam nga nekk ci àll ba faatu ci ab xiif wala da koy bàyyi mu dem te kenn garanti wu ko dereti kii ñu rey neen nit ñi ne cel Omar ibn al-Khattab sëkk ba mu yàgg mu siggi xool ñaari xale yu góor yooyu ndax mën ngeen koo jéggal ñu ne déedéet doon kay ku rey sun baay dañ koy rey Omar de yéen mbooloo mi kan moo mën a garanté waa ji ne bu demee dana delsi Abu Dhar al-Ghifari jóg taxaw ca at yu bari ya ca respect bi ko yàlla joxoon ca dëddu àdduna ga ca dëggu ga ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne asamaan day tiimul suuf itam yenuwul ku gën a dëggu abu dar abu jóg taxaw ne yaa amirul muminin man maa koy garanti omar ne ko abu dar lii rey la rey bakkan mu ne ko doonte rey bakkan la sax ndax da koo xam mu ne xawma ko lu tax nga di ko garante mu ne dama gis ci moom melokaani jullit melokaani ku gëm yàlla ma xam ne du fen dama gis ci moom melokaanu ku gëm yàlla ma xam ne du fenn ma xam ne dana ñëw kon gëm yàlla dafa war a doon loo xam ne su xasee nekk ci xol bi ñiy gis ay màndargaam ci bitti daa ko war a wone ci mboolem ay jëfam kon foofu la Abu Dharr sukkandiku Omar ne ko ndax dangaa yaakaar ne bu tardé woon danaa la bàyyi mu ne ko maa ngi dimbandikoo yàlla waaja dem Omar may ko ñetti fan ak i guddeem mu dem ngir toppatoo ak njabootam war leen a tàggu war a tàggu ay goneem xool ci lan la leen di bàyyi door a dellusiwaat ngir ñi tax teg ci kawam géttanub yàlla boobu ñetti fan jàll na ñu jekki ba takkusaan jot nga xam ne jant boobu so moo ci des gisaguñ waaja Omar ibn Xataab radiallahu taala anhu dal di génn ca pénc ma yónnee ñuy woote asalaatu jaamia mooy woote bi ñu daan wootee su fekkee ne dara xew na loo xam ne dañu wut ak waxtu julli noonu lañuy woote julli di daje daka ñu woote waa Madina gépp génn ñaari xale yu góor ya kalaame si woon génn ñoom itam Abu Dar génn dikk toog sukk fi kanam Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu ñëpp ngi toog di xool Omar ibn al ne ko ana waaja Abu Dar ne ko gisuma ko day amirul muminin ñëpp di cal Abu Dar di geesu jant bi di ko xool di xool lu ci war a des ndax wóor na ko ne amaana li des ci jant boobu soo boo wëttuwul mën naa des ci dundam moom saxaaba yépp ne cell sëgg kenn ku ci ne li ngay yëg ci sa xol yàlla rek moo xam lu mu doon kenn ku ne xam na ne Abu Dar radiallahu taala anhu am na place bu mag ci xolu Omar ibn al-Khattab ko laajoon ci lu aju ci àdduna mën na ko koo xam na ne lii atteb yàlla moomu ko mënu ko koo jox atteb yàlla boo xam ne diisu ko foyee diisu ko dugal ci ay tiroir di ko fàtte diisu ko attee ci situation bàyyi beneen wala ci place bàyyi beneen walla ci aw nit ñoo xam ne dañ leen koy àtte bàyyi ñeneen xam na ne dafa généraliser ñépp ak lépp ak fépp dem nañ ba jant bay bëgg a so ñi xool seen waaja muy ñëw sori lool nag waaye di daw ñi seen ku muy daw di njëkkanteek jant bi so ndax wóor na ko ne ki ko garanté woon bu jant bi duggee rek li naroon a wàcc ci kawam ci kawam la jëm naka ñu ko seen mu ñëw Omar di allahu akbar ñépp ànd ne allahu akbar bi waa agsee ba toog Omar ne ko yow day boo toogoon foofe ci sab dëkk nun xamunu la xamunu foo dëkk kon mënunu laa indi waa ja ne ko ah mbir mi de dama xam ne du sama digganteeg yow waaye daa nekk sama digganteeg ki xam lépp kon loolaay li Abu Dar waxoon nee na damaa gis ci moom màndargam ngëm yàlla gëm yàlla loolu lay def ci nit ne ko maa ngi nii nag bàyyi naa fa gone ak njaboot ga ñu mel ne ay cuuji picc ndox nekku fa lu ñuy lekk itam nekku fa waaye nag dama ñëw ngir attab yàlla Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu daal di ne ko lu tax nga ñëw mu ne ko damaa ragal ñu dem ba mu yàgg ñu ne daal matal kóllëre jóge na fi nit lu mu wax def ko jóge na fi loolu laay bañ mu dem kon foofu la ñu del siwaate ci société ak nit ñi nga xam ne jamono yu nekk ñu ngi ci biir société bi di dox te seen itte mooy aar société bi ba ñu yëg ne diine ji defaroon nit ñi démb mu ngi defar aw nit ba tey kon kooku lay itteem bokk na ci nit ña nañu yëg ne matal kóllëre maanaam loo wax def ko loola jógu fi ba tey Omar laaj Abu Dar yow lu tax nga nangoo garanti jëmm ji mu ne ko dama ragal ñi ne aw yiw amatul ci nit ñi loolu moo tax ma garanti ko Omar geesu ñaari xale yu góor yi ne leen waaw yéen lu ngeen wax xool leen gis leen ñuy jooy ñu ne noonu day jéggal nan ko jéggal nan ko ndax nun itam danoo ragal ñu ne njéggal dem na jóg na fi nekkatu fi kon yooyu kuréel mbokki jullit yi boo leen xoolee kenn ku ci nekk it ittey bopp ak sa intérêt bopp taxulaa jóg li la tax a jóg mooy nit ñi nañ yëg ne yiw a ngi ci askan wi ba tey mbaax a ngi fi jéglee ngi fi matal kóllëre ngi fi noo ngi dund ci jamono joo xam ne nag yooyu dafa mel ne mi ngi bëgg a raaf te sun diine day loolu lanu jàngal moom la feesal dell Omar ibnul Xataab wëlbatiku te jamono yi muy wax rangooñ yaa ngi ci sikkim bi radiallahu taala anhu mu ne ñaari xale yooyu yàlla na leen yàlla fay yiw ndax seen jéggal gi am na solo lool yow Abu Dhar yàlla na la yàlla fay njàqare lii nga dindil sa mbokkum jullit yow itam yow waa jii ñu doon bëgga a rey na la yàlla fay yiw ndax nii nga dëggoo ak nii nga matale kullare ma ne kon mbokki jullit yi giig maas nga xam ne mooy ñi yaroo woon fi keppaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tasaaroo ci àdduna ñi nekk ci seenu jur ñi nekk ci dëkk bi ñii di àtte ñi doon ay ndaw ñi doon ay mag jikko yooyu ànd daje ci ñoom ma ne feddlil nanu ne askan wi aajo woo nañ nag delluwaat jàngaat dunduk ñooñu jàngaat saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba xam ñooy ñan ak yar bi ñu leen yaroon mooy ban yar yàlla nu yàlla jàpp ndalal loolu mbokk jullit yi at mu yees tàmbali na bis ne tey am at jàll na noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa lépp loo xam ne faatoon nanu ci at mu weesu mu jéggal nu ko lépp loo xam ne ay rëcc rëcc la mu jéggal nu ko lépp lu doonoon ak càggante mu jéggal nu ko te at mi ñëw mu may ñu kàttan ban beesaat ci doonaat ñu gën a jublu diineem doonaat ñu gën a jublu sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën cee jàpp gën koo dund gën a dundalaat jikko yu mel ni yii ñuy wax ngir mu mën a tasaaroo ci askanu lislaam ndax ñi xam ne lislaam nii la mel su nit dëngee moo dëng waaye lislaam moom dëngut kon lii mooy weeru muharram weer waxan weer wu màgg la bu bari woon lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di woor rawatina li ci feddliku muy juróom-ñeenteelu fan ba ak fukkeelu fan ba xëy na xutba bi ñëw bu ñàkk mu jëm ca loola ndax dana fekk lay dox ci digganteem ak koor gi soreetut leneen li ca feddliku itam mooy ñi yàlla baaxe lu ñuy génnee asaka waxtu wi ci ay waxtoom la bokk weneen waxtu wa ca des mooy weeru koor ku yàlla baaxe lu gé looy génnee asaka bu waxtu wi jotee muy weeru muharram mën nga koo jàpp muy sa weer at mu nekk nga génne ci sa asaka ñi jël ko jox ko ñi nga xam ne ñooy ñi ko aajowoo xam ngeen ne seen mbokki jullit organisé nañ ci wàll googu ba taxawal genn kees goo xam ne keesu asaka la goo xam ne dañ koy jël ca ña nga xam ne ñoom la yàlla baaxe di ko def ci ña nga xam ne ñooy ñi ko aajowoo te weer wi nga weer wi nga xam ne ci yiñ gën a yaakaare dajale asaka ci la bokk noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu jàpp ndalal xeetu lislaam ak njub ba mu àgg ci tiraanga ak mbaax ak lépp ñi koy askane diine sunu borom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo topp diineem toroxte ak ndëngte ak càggante ñi koy askane ñi woon gannaaw diine lislaam te leneen lu dul loolu bañ a am wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa